salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu bokki jullit yi bokki taalib yi eh, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci bis bu tedd bi di bisu borom Daaru Muxti eh, Tawaar wi TV ñëw fii ci kër Baye Cheikh Khady sàkku ci ñun ñu yëkkat ci ay kàddu yoo xam ni ci bis bi la jëm ak loo xam ne tam xëy na dana amal njariñ ku ko dégg te bëgg ko jariñoo ñu ñëw fi ànd ak eh, kenn koo xam ne ci dëkk bi la bokk ñëpp xam ko muy Serigne Sonia Bidjo bi nekk ci rajo Darou Mouhty kon ñu ngi nuyu waa senegal gépp ci bis bii nga xam ne mooy sunu bis di bisu borom daaru Mouhty mu nekk bis boo xam ne itam euh, bis bu mat a jàngat la ndax maam Thierno sëñ bi da ko dénkoon tukki jàpp naa ni bu ñëwoon la mu ko dénkoon am lu ci yàqu kon bis bi doo am. Eh, sëñ bi nag ba mu demee ci géej gi ba ñëw la mu ko dénkoon boroom daaru defal ko na mu ko bëggee woon ku mat a jàng mu jàngal la ku mat a yar mu yar la ku mat a wut kër mu wutal la kër ku war a sañ ci dëkk lépp borom daaru defal la ko bi mu ñibbisee daje boo mu njëkk a daje sëriñ Touba moom la sëñ Fallu joxoon sëñ Mouraaw Balla ni ko muy nis fu saxbaan dee leen ko màggal ndax boobu mooy bisu mbégte kon loolu mooy bis bii maam Thierno nag day sëñ Tuubaa ndax lu ne ci moom rek sëñ Tuubaa ko ci def sëñ Tuubaa ko jàngal moo ko yaral boppam yaakaar naa ku sëñ bi jàngalal boppam boo ci génnee man ñi ma ci diggaat bëriwul moom rek lañu mën a wax koo xam ne sëñ bee ko jàngalal boppam eh, boppam itam maam Thierno ko ci doyoon teewul na kenn ku ne cër boo war a am ci sëñ bi am nga ko ci waaye jàpp naa ne cërum maam Thierno ci sëriñ bi li koy firndeel bari na dëkk bi ñuy wax Darou Moti maam Thierno Ibrahima sañc ko 1912 soo génnee Touba doo too gis dëkk bu toll nii Darou Moti màggalu Darou Mouhty itam gannaaw màggal màggal gu ëpp ci yoonu murid amut ku ko ku ko xam na ma ko wax. te région Louga gii mu dëkk itam mu bokk te waajur maam Thierno Ibrahima dëkk Koki Darou Mouhty bokk ci région de Louga événement bi ci gën a rëy ci région de Louga mooy màggalu Darou Mouhty. gannaaw gannaaw Louga itam ci région Louga Darou Mousty mu fepp amul benn dëkk bu gannaaw Louga bu ci région Louga bu fepp Darou Mousty euh, mbooloom Darou Darou ci yoonu Mouride itam kenn ëpp leen ci mbooloo kon borom daaru cër bi mu am Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa sedd na ko ba matal sëkk ñu nag bu ñuy roy ci borom daaru li ñuy war a roy ci moom mooy am aw fit nangoo jaamu yàlla nangoo liggéey. te bañ a tooñ te ku la tooñ nga jégal ko ñun waa Darou Mousty loolu la ñu roy ci borom Darou bu dee réew mi itam wala ab sëriñ wala ku mën a doon ku ne boo dee sëriñ bu ñu lay jox addiye dafa am fu ñu la sant nga def ko fa boo dee nitu nitu àdduna boo yoree alal ji ñëpp bokk moomoo ko dañu ko dénk na kenn ku ne jàpp ne yow mal xeexam dangay nga sa borom ba jàpp ni yow dong la bind te la nga fay am fii nga ko mën a fàggu yóbbaale ko kenn du dem ba foofa def fàggu kon nag nañ bàyyi xel ci àddina bu gàtt bii xam ne jeex na ba pare lu jeex nag te fa nga jëm moom xamoo kañ nga fay jóge te du dul del si fii te loo fa yóbbul doo ko fekk kon bis boobu jar naa waajal maa ngi wax Sénégal yëpp ni leen nañ maase ci delluwaat ci démb roy ñi nga xam ne ñooñu meññ nañ meloon yoon wañ jaaroon la doon seen yitte ñu jóge fi bàyyi ñu fi ndon loolu ñun ñëpp war nañ leen koo sàmman ba bu ñu ko yokkute bu ñu ko yàq loolu maa ngi koy sàkku ci sama bopp man mi laaj jiital eh, soog see soog koo gis ni ku gis ni wax ji ab gis na ci boppam maa nga ci biir waxuma ko nag ngir ngir dara waaye nag bu dëgg jotee moom des koy wax rek dañ gën a farluwaat ci jaar ci bëgg-bëgg sëriñ bi eh, ndax sëriñ bi moom wàccoon na ñun ñun nag man déggaguma kenn koo xam ne taxaw na ne wàccoon na ma ak sëriñ bi waaye sëriñ bi ñun mën nañoo taxaw wax ne wàccoon na ak ñun ndax lu war ci ñun rek defal nañu ko kenn ku ci ne am nga loo xam ni boo toogoon si la lay dikkal nga bëgg caa dund mënoo koo jeexal te ñi la koy indil ñoo la ko gën a woo te gënoo leen ci dara nag ñuy am seen alal di leen ko indil bu ñu amee doom tudde la soo leen yéenee ñu dem bu ñu amee mu war sax bëgg nga jëkk leen ko sol bu ñëwee toog suuf même bu fay fëtee ne ñoom ñëpp toog suuf ngir bëgg guñ bëgg sëñ bi ak warmaal guñ warmaal sëñ bi kon nag ñun li ñu mën a delloo ñu jikko rek xam ni ñoom sëñ bi dong lañ bëgg sëñ bi lañ bëgg nag ba képp koo xam ne gis nañ ñu takk nga sëñ bi te sant Mbàkke wala sëñ bi defar sa maam ñu lay xoolee jëm yooyu kon nag war nañoo góorgóorlu ba delloo jéem a delloo njukkal mag ñooñu delloo gi njukkal nag mooy sàmmal leen li nga xam ne ñoo ko moomoon ñu sàmmal leen ko ba du yàqu kon nag waar wi ñu ngi leen di gërëm di ñaan seen site bi itam yàlla defal leen ci barke ñaan yàlla ci jàmm ci réew mi eh, yàlla yàlla may ñu tam koor gi ñëw ñu woor ko jàmm nawet bi ñëw itam yàlla def ci barke réew mi itam yàlla def ci jàmm. waaye nag ni ñëpp wut jàmm ci réew mi. am na loo xam ne kat bis bu demee ba tàbbi ci réew mi ñun ñëpp ñooy ba ñooy maase ko te kenn ku ne xam na ni senegal réewum jàmm la euh, li am ko ci yeneen réew yi nag war nañoo fexe fexe ba du agsi fii loolu nag li koy waral mooy kenn ku ni yéene sa moroom jàmm te moytu luy indiw ay ndax lépp loo xam ne soo ko waxee mën naa indi ay nga moytu loolu bañ ko wax. lépp loo xam ne soo ko defee mën naa am indi jàmm nga fexe ba ba def loolu kon nag ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla ñu fekk ko ay ati at ñaan yàlla bu déwénee seen site bi mën naa nekk sax télévision yàlla na ko yàlla def waaw yàlla taxaw leen sàmm leen seen sooy bu jom mi ngeen àndal tam ñu ngi koy gërëm dëkk bi ne ñoom daanaka yu mel ni ci soxla rek moom la ñuy woo kon bu leen fi indee andi leen ci këram ndax fii la dëkk waaw borom kër gi nekkoon léppam nag nekkoon sëriñam nekkoon xaritam eh, ba Baye Cheikh bi mu ko tuddee sax man mii la ko féetale kon loolu am na day wane rek am na ab cër ci ci ci ci kër gi jërë ngeen ñëf ñoo ngi leen di sant di leen gërëm. bisu Baye Cheikh bi dangeen ko daan boole comme tey. waaw bisu Baye Cheikh Khady maanaam dañ ko daa boole ak màggalu daar gi mu nekk benn bis loolu itam liñ ñu ci jublu woon dañoo jàpp ni maanaam maam Thierno kenn mën la am bis bu ko ci Darou musi eh, di woote beneen bis nag di ko wutal ñu far ko boole ak màggalu Darou Moussi mu nekk benn. nga xam ne benn woote lay woote ñii ñëw benn yoon la ñuy ñëw duñ ñëw ñaar yoon duñ ñëw ñett yoon buñ ko fekkawaatee nu ñu boolaat bis bi comme ñu ko boolee ak bis bi tey rek ba kere ñu fiy jóge mu lool rek mooy wéy mu nekk benn bis rek jël bisu maam Thierno dugal ko ci bisu maam ndax maam Thierno yi lépp lu fay am rek moo tax kon nag bu ñu jëlee bisu Baye Cheikh dugal ko ci bisu maam yaakaar naa dana mat sëkk waaw loolu rek lañ ci jublu ak jamono ji fi mu toll itam ci woote yu bari itam ñu noppal nit ñi ba nga xam ñi aji ci moom ak ñi nga xam ne suñuy soppante saa yi ñu woote ñu jóg ñu def jàpp yaakaar ne bu ñu ko defalee benn woote rek moo leen di gën a nopp loolu rek lañ ci jublu te ñaan ñaan la lu ñuy jàppale la moo tax ñu jël bis bi boole ko bisu borom daal rek dëxañ ko ci biir borom daal ndax moom amul lu ëpp borom daaru jërëjëf moom nga jàpp ko ñaar. bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil alamin yàlla barkeel. lillahi fi ladina wa samaa'i kulli wali xad yaada bin namaari baraka li fi narakati wa sukur rabbi lazi xataani بين الكرام عابدين الوزير fi harabay